asalaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu di leen wax bisimila ci seen émission yoonu njub am na nu mbégte ci li nu xam ne yéen a ngi nuy déglu ak cawarte gu ànd ak teewlu tey danu leen fas yéene dikke njàng mu jëm ci xewum nowel jamono jii di jege si gox yu bare ci àddina ñu ngi rëj rëji di ko waajal kon warees na mën a laaj ñaari laaj yi lan mooy nowel lan moo dul nowel li nu bëgg a jëkk a laaj nag mbokk yi mooy lan moo dul nowel xam ngeen ne bésu nowel ñi ëpp ci nit ñi dañu ko teg bésu feet rek moo waral ñenn ñi di ko séentu ak a waajal bu agsee ñu cay topp seen nafsu ñii di baali ñee di xawaare di màndi ak a def yu ni mel ñu mel noonu duñu ay taalibe kirist mbaa boog ñu koy wuyoo te réere mbir solo nowel kàddug yàlla nag moom leer na mu ne kuy topp sa nafsu nii ngay jëfe njaaloo xalaat yu bon defi ñaawteef ak say cër waaye loolu ci dee jëme boroom léegi nag xam naa ne dinga ma ne ah man de loolu laa gis gaa yi di def ah. te sax su loolu dul nowel kon luy nowel ma ni la laaj bu am solo ngoogu lan mooy nowel xamal ne nowel pàttaliku la nowel mooy bés bi way gëm yéesu yépp di fàttaliku seen juddug musalkat kon taalibe kirist yu wér yi ci xewum nowel lañuy fàttalikoo ak a màggal juddug yeesu kirist musalkatu bàkkaarkat yi ku toll ni musalkatu àddina nag bu ñu demee bay màggal juddoom war na nekk ci anam yu ñu rafetlu waaw ndaxte juddugu kéemaane googu yàlla ci boppam moo ko jëkk a yëgle ba aadama ak awa ci fiiru seytaane mi mbubboo woon jaan la ko yàlla ne woon dinaa def mbañeel ci sa diggante ak jigéen ji ci sa diggantey xeet ak xeetam dina toj sa bopp te dinga ko màtt ci tëstën noonu la yàlla tàmbale woon xamle pexeem mu rafet ngir wàcce musalkat bi yàlla ngi doon yëgle ni musalkat bi waroon a juddoo ci jigéen rekk ndaxte ki naroon a nekk ràmmkatu bàkkaarkat yi mënula jóge ci nit ñi taq bàkkaar gannaaw ba yàlla ci boppam yëgle ñëwu musalkat bi jëfandikoo na it yonent yu bare diirub junni junni at ngir yëgle juddugu kemaane gi yonent yàlla esaay waxoon na naka la musalkat bi juddoo bi mu naan borom bi ci boppam dina leen jox firnde te mooy janq bi dina ëmb jur doom ju góor mu tudde ko Emmanuel yonent yàlla mise moom xamle woon na bérébu juddug almasi bi bi mu naan betleyem efrata yow mi tuuti ba bokkoo ci teeru yi ci diiwaanu yude ci yow laay feeñale kilifa gi yilif bànni israel te cosaanam féete ca bési njalbeen ga fekk dara amagul noonu kon la mise doon yëgle ni almasi bi waroon a juddoo ca betleyem dëkku yonent yàlla daawuda ci lu wér yàlla waajoon na dikku musalkatu àddina si bu baax a baax bi waxtu wa jotee ci yàlla mu yebal malakam jibril mu xamal maryaama ne dina ëmb jur doom ju góor nanu déglu li ci kàddug yàlla wax mu ne bi elisabet soxnas yonent yàlla sakariya nekkee ci juróom benn weeram yàlla yónni malaakam jibril ca dëkku nasaret ca diwaanu galile mu yebal ko ca janq bu ñu may waaju bokk ci askanu daawuda te ñu koy wax yuusufa waaye àndaguñu janq baa ngi tuddoon maryaama malaaka ma dikk ca moom ne ko jàmm nga yow mi boroom bi defal aw yiw mu ngi ak yow waxi malaaka ma daldi jaaxal maryaama muy xalaat lu nuyoo boobu mën a tekki malaaka ne ko bul ragal dara maryaama ndaxte yàlla tànn na la ci woom dinga ëmb jur doom ju góor nanga ko tudde yéesu ku màgg lay nekk dinañu ko woowe doomu aji kawe ji boroom bi yàlla dina ko jébbal nguuru daawuda maamam noonu dina yilif askanu yankoba ba faw te nguuram du am ab maryaama laaj malaaka ma ne ko naka la loolu mën a ame man de janq laa ba tey malaakama tontu ko ne xel mu sell mi dina wàcc ci yow te aji kawe ji dina la yiir ci kàttanam moo tax xale bi juddu dinañu ko woowe ku sell ki doomu yàlla ji elisabet sa mbokk mi it dina am doom ju góor ci màggatam ki ñu doon woowe ku mënula am doom mu ngi ci juróom benn weeram ndaxte dara tëwul yàlla maryaama ne ko jaamu borom bi laa na yàlla def ci man li nga wax ci noonu malaaka daldi dem xarit yi ñu déglu noonu la yàlla doon jëme kanam pexeem mi mu waajaloon ca njalben ga ngir xettali ci doom aadama yi lu yàlla nar kenn mënu ko fànq ni ngeen ko dégge jibril yëgaloon na maryaama mbir yu am solo yu jëm ci doom ji mu nar am li nu mën a jëkk a jàpp ci yëgleb malaaka mi mu jëm ci liir bi mooy ay waajuram tànnaluñu ko woon turam yàlla ci boppam moo ko tànnaloon aw tur nan la yàlla tudde woon liiru maryaama bi waroon a juddu yéesu la ko tudde liy tekki kiy musal kon tur wi wuyu na borom ndax yéesu mooy benn musalkat bi am kepp mooy pom bi doom aadama yi wara aw ngir jéggi déegu safara ak tamarax bi añu képp ku gëmadi waaye xarit yi am na leneen lu malaaka mi waxoon maryaama ci doom ji naroon a juddu jibril dafa ko wax ne ku màgg lay nekki waaw bir na àddina ne yeesu ku màgg la lépp ci cosaanu àddina si sax wone na ko te lépp li yàlla ak malaaka yi ak yonent yi yëgle ci moom am na màggaayam deesu ci xel ñaarati ndaxte moom rekk la kàddug yàlla wax ne moo nekkoon ak yàlla ca njalbeen ga ci moom la yàlla jaar sàkk lépp li mu sàkk loolu tekkiwul ne ñaari yàlla ñoo am ndaxte yéesu ci boppam mooy kàddug yàlla gi jóge asamaan juddu ci bindu nit kii mëneesu ko gën a màgg ci lu wér dara tëwul yàlla lépp li nar a xew ci kaw suuf yàlla xam na ko te mën na ko jëfandikoo def ca ay nameelam noonu bi àpp bi yàlla tëraloon matee yónni doomam mu juddoo ci jigéen ni ñu ko yëgle woon kon léegi nanu déglu ni kàddug yàlla nettalee juddug yéesu mu ne ca jamono jooja buur bu mag bu ñuy wax auguste joxe ndigal ne na ñépp bindu ji noonu ku nekk dem bindu ji ca sa dëkku cosaan yuusufa nag mi ñu may maryaama te àndaguñu woon daldi jóge nasaret ca diiwaanu galile jëm ca diiwaanu yude ca betlehem dëkk ba daawuda cosaanoo ndaxte ci askanu daawuda la bokk mu dem bind ji ànd ak maryaama jabaram fekk booba maryaama ëmb bi ñu nekkee betleyem waxtu wa mu waree mucc agsi mu taawloo doom ju góor mu laxas ko ci ay laytaay tëral ko ci lekkukaayu jur ga ndaxte xajuñu woon ca dalukaay ba fekk booba amoon na ca gox ba ay sàmm yu daan fanaan ca tool ya di wattu jur ga noonu benn malaakam borom bi feeñu leen ndamu borom bi daldi leer melax wër leen tiitaange ju rëy jàpp leen waaye malaaka mi ne leen bu leen tiit ndaxte dama leen di xamal xabaar bu baax buy indi mbég mu rëy ci nit ñépp tey jii ca dëkku daawuda ab musalkat juddul na leen fa te mooy almasi bi di borom bi ci firnde ji ngeen koy xàmmee dingeen gis liir bu ñu laxas ci ay laytaay tëral ko ci lekkukaayu jur bi mu waxee loolu yeneen malaaka yu bare jóge asamaan ànd ak moom di sant yàlla naan nanu màggal yàlla ca asamaan su kawe sa te ci àddina na jàmm ji wàcc ci nit ñi mu nangu ndax yiwam bi malaaka ya delloo ca asamaan sàmm yi di waxante naan nanu dem boog betleyem seeti la fa xew li borom bi xamal ñu daldi gaawantu dem gis maryaama ak yusufa ak liir ba ñu tëral ca lekkukaayu jur ga bi ñu leen gisee ñu daldi nettali lañu leen waxoon ca mbirum xale ba ñi dégg li sàmm yi doon wax ñépp daldi waaru lool waaye maryaama moom tekkoon na mbir yooyu yépp di ko xalaat ci xolam noonu sàmm ya dellu ca seen jur di màggal yàlla di ko sant ci li ñu déggoon lépp te gis ko ndaxte lépp am na ni ko borom bi waxe woon bi bés ba dellusee jamonoy xarafal xale bi agsi ñu tudde ko yéesu ni ko malaaka ma dige woon laata ko yaayam di ëmb mbokki déglukat yi noonu la yeesu juddoo muy juddu gu kéemaane gu mësula am te dootul am lii lépp yàlla def na ko ngir won la ne kooku mooy ki waroon a juddu li tax musalkat bi juddu nag mooy ngir musal waa àddina ci musiba yi di bàkkaar kàddug yàlla wone na bu leer ne doom aadama yépp bàkkaar te ñu ngi ko doone ci sunu maam aadama waaw mbokk yi solop nowel moom weesu na fi ko ñenn ñi tënk juddug yeesu mooy may gi ëpp solo ci nit noonu bi yeesu musalkat bi juddoo am boroom xam-xam yu mag yu ko seetsi kàddug yàlla nee na bi nga xamee ne yéesu juddu na ca betlehem ca diwaanu yude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 ba ñu gisee biddéew ba nag ñu am mbég mu rëy rëy ñu dugg ca kër ga gis xale ba ak maryaama ndeyam ñu daldi sukk di ko màggal mbokki déglukat yi boroom xam-xam yooyu ngeen dégg yàllaa leen tànnoon jox leen firnde ju wér nekk ay boroom daraja terewuleena màggal si musalkat bi wante lépp defoon nañu ko ci anam yu ñu rafetlu almasi bi yeesu yelloo na màggal ci anam yu ñu rafetlu xarit yi ñuy déglu jàppaleen benn yoon ne pàttalikum juddug musalkat bi wareesu ci def lu di soo ci daan def lu jekkul ndax ñàkk xam bul ko ci defati ndaxte bés boobu la yàlla may àddina ngën gi may waaw musalkat bi yéesu mooy ngën gi may geneen may ëpp ko maanaa ci bëti yàlla am ko mooy am alal ju wóor te wér bu ñu la mayee may gu neex nag nooy def da koy jël du noonu léegi kon nooy def ak musalkat bi yéesu xamal ne sa laaxira mu ngi aju ci li ngay def ak may gile ndaxte mbind mu sell mi nee na peeg bàkkaar mooy dee waaye mayu yàlla mooy dund gu dul jeex ci yéesu kirist sunu borom jërë jëfati yow yàlla ndax sa may googu weesu dayo waaw musalkat bi dafa juddu ngir fay sa boru bàkkaar ci gàddu mbugal gi naroon a dal ci sa kaw moo tax képp ku ko gëm génn nga ci dee tàbbi ci dund gudul jeex ku ko gëmul nag di nga sànku ba faaw sama xarit fàtte moom mënula ñàkk waaye boo fàttee lépp li nu jàng tey lii moom fexeel mu des ci sa xel sooy fàttalikooti juddug musalkat bi ci jamonoy nawel xamal ne dafa war a am ci mbég dëgg la waaye itam ci anam yu yiw ànd ak cant ak ngërëm te xam ne mooy bésu pàttaliku juddug musalkatu àddina du musalkatu way gëm kirist yi rekk sa musalkat la yow itam ci kaw nga gëm ko nu ngi leen di gërëm ci déglu bi di leen wax ne su ngeen amee laaj ci li nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat ci li kàddug yàlla wax ci musalkat bi mu ne peyug bàkkaar mooy dee waaye mayug yàlla mooy dund gu dul jeex ci yeesu kirist sunu borom jëfati yow yàlla ndax sa may googu weesu dayo